nga xam ne imam bi am na gel gelam baa ngi faasiq la te mënoo ci dara mooy imaamu koñ bi wala nga xam ne imam bi doxankat la ñu baal ma ci wax bi mais dafay am walla nga xam ne imam bi toxkatub cigarette la ah tox cigarette ci la bopp Seydina Cheikh nee na sama tarixa ku ci bokk doo tux cigarette booy tux dog nga ci tarixa bi wala imam buy naan sàngara nga xam ko nooy def te ñeneen ñi xamuñ ko te yow xam nga ko charia mayatul la nga julli ci ginnaaw te charia mayu la nga dénoncé ko mm-hmm. ah, mukk boo ko dénoncé ñu caw la ndax dañ lay jàppee fenkat ndax amoo seede yi amoo seede yi dañ lay jàppee ko yàq der ak ku ŋàññi gor ku xas gor juróom-ñetti fukki yar lañ lay caw yow mi ko dénoncé moo tax Sénégal bu ñu doon caw ñi ñuy caw dana bari de ah, yàlla dafa maandu yow yaa ko gis waaye ñeneen ñi gisuñ ko suturaal ko suturaal ko moo tax Cheikh na Cheikh bu ne kii màndi kii tux cigarette ak kii naan sàngara buñ dajee woon ci man bu ma war a tànn imaam ci ñoom ñaaru mu ne tànn naa kii màndi bu fekkee màndi wut boobu mu jiite ma walis kii tux xam nga li tax ku màndi boppam buy saw ku muy saw buy dem cabine fu muy dem cabine buñ koy duma kuñ koy jolli xeer xale yee koy topp di ko jol ay xeer boppam ka ca silwiise nu muy def màndi benn tatt dugg biir néegam nelaw bi xiqi yeewu tuxkati cigarette nag xam nga li ci bon boo ne ñaata nit nga lor ñaata nit nga lor ñaata jinne nga lor ñaata malaayika nga lor sëriñ Mor Diop mii may faral di tudd dem leen ngeen laaj ko yaayam xetu cigarette ko rey moom ma ko nettali dem leen ngeen laaj ko dafa romb ci di dem di rooti am ku doon tux ci penc mit ëf xet gi dugg ko kooku est-ce que yëg na ne xetu sigaretam moo dugg yaayu sëriñ moor ba mu génn ci àddina xam nga mag ñooñu dañu sell sëñ moor nga xam ne bàyyam magee na Seydi El Hadji Malick vingt ans ñaar fukkeet la ko magee ba pare wommatu topp ci gannaaw El Hadji Malick te jàng lu ne xam lu ne doomam bu jut jàpp tariqa bi lu jiitu Maodo <laughs> sëñ Aline Diop Seydi Aj Malik dolli ci jubal ndax nee na dafa jub ba ku ànd ak moom jub Sëñ Aline Diop jubal jàng lu ne xam lu ne jël tarixa bi bu yàgg xam nga ko magee Maodo vingt ans mën naa jur Maodo nit ki boo ko magee ñaar fukki at kat mën nga koo jur man sama doom yi est-ce magee naa leen vingt ans wóoruma sax voilà kon dama ci bëgg a wax ne mën na jur Maodo jàpp tarixa bi avant muy gis Maodo jàng benn ar avant muy gis Maodo xam lu ne avant muy gis Maodo gis Maodo wàcc lépp topp ci ko Maodo doomam bu ma sa judd mu jox la tarixa bi ndax Seydina na a ko ko waxoon ba ci sëñ moor mi ci ci doomam yi gën a gën a féetee ndaw la bokk sëñ Mor waaye bi mu juddoo la ko bàyyam jox tarixa bi waxuma ko nag waaye am na mag mu ma nettali ne li daloon sëriñam di Jamil moo ko dal moom sëñ moor dégg naa bi mu ganee àddina maga ma ko nettali nag mu ko xam moom waaye moom xam nga nit du nettali boppam moom dem leen ngeen laaj ko lii may wax ku juddu rek baayam jox la tariqa bi moom dégg naa bi mu ganee àddina moom sëñ Mor baayam ñëw di ko seetsi nii Cerno Cheikh Alhaji Omar mii yore kurusam tiim sëñ Mor di ko ñaanal mu ne sëñ moor jër baaraam bi lonk ci kurus gi mu ne ah kii de jàpp na tarixa bi balaa ma ko koy may Seydi Jamil noonu la defoon bi mu ganee Seydi Jamil mi bi mu ganee àddina moo am ci sëtu Maodo yi Maodo teg ko bët di ko ñaanal bi Seydi Hadji Malick ñëwee di ko ñaanal dégg naa yor kurus gi tiim ko di ko ñaanal ñu ne Seydi Jamil yëkkati loxoom dugal ci kurus gi lonk ko ba mu dëgër nag mu ne Maodo xëcc xëcc mu xëcc mu ne daf may ñaan ndigal ci tariqa bi <laughs> Seydi Jamil mu ne tey rek dem na xabrom jeex na sama xarit sëñ Ahmad Da kon yëf yi du du du hasard ah, du hasard amul Serigne Cheikh na ne bu amee nañ ko boole ci turu yàlla yi mu ne ay hasard amul kon li ma ci jublu rek te xoolal Serigne Mor Serigne Mor Diop tabaarakallaa fu ma toll woon bi may jeexal bay dugg ci gàmm boobu moo tax tariqa bi ah moo tax déedéet ma euh, roy ci kuy kontar na tiijaan yi tarixa bi daf ko tere waaye roy ci kuy naan sàngara walla di def mooy yàlla yi nekk faasiq dañ ko euh, boo ko xamee yow waxuñ la nga nettali ko waaye dañ la ne bul roy ci ginnaaw da ngay julli julli salaatu muhaadaat mooy li ma wax ni demal jàkka ja da nga war a dem buy limaat ne allahu akbar neel allahu akbar buy jàng faatiya nga jàng faatiya buy jàng saar jëlal ba gën a gàtt yow fa ngay feeñee rek mooy bi imaam jamo jee di jul di sujud yow doo sujud moo tax kiy def salaatu muhazar bëgguñu sax mu toog ci sàppe ñaareel bëgguñ mu taxaw ci sàppe ñaareel na dem ba ca ñetteel wala ñeenteel mu taxaw fa bu dee benn sàppe na dem ca koñ ba xam nga lu ñuy bañ imaam mën na jama di def baada baada eh, baada qabla salaam walla baada salaam te doo ko ci topp boo ko ci toppee sa julli yàqu na parce que royoo woon ci moom te boo ko defut waa jàkka ji danañ am duut danañ nekkoon kii xanaa julli war doon ak imaam duut boobu la ñuy bañ nga indi ko ci kanamu mbooloo mi moo tax dañ sopp nga dem ca cat la bu dee benn sàppe la bu dee ñaar demal ca ba ca ñaareel bu dee ñett demal ca ba ca ñetteel li may wax dem leen ci téere fiq yépp laxdari bii gën a tuuti bu ngeen demee mu jàngal leen waaw nit di ko fa kastal ku yàlla jiital rek am na lu mu def ci yow danga cay rafet njort xam nga noo ci rafetal njort mm-hmm. yow neel dugal na ko ca rek te roy ci ginnaaw kooku mooy benn benn ñaareel bi mm-hmm. nañ ko xam moo tax na tiijaan yi waxul kenn bañ ma ku ko bañ nag yaa xam lu tax nga bañ ko moom nag looloo tax mu wax ko te ci sharia ak sunna la tegee mu mu dem ci li ma njëkkoon wax ci njëlbeen bi misaanu shar'i fa in waafaxa mu ngi noonu xam nga ne waafaqa kon nag yal nañu yàlla defal sutura ah, waxtu waxtu waa ngi waaxu bu baax a baax su ko defee kon sëñ Babacar ah buñ jullee ba noppi waxtu wee tax nga sànni woon ci nit ñi kàddu ah, waaw déedéet buñ jullee ba noppi dama bëgg dama ci taamu buñ jullee ba noppi ndax mu gën a am barke mhm. beneen bi ci des mhm. buñ paree na nga jox sa ñabdu mhm. sa mag mu ñaan sa mag wala sa baay waaw sa baay la tabaarakallah mu ñaan ndax doom bàyyi sañ na ko ñaanal moom muy suñu sëriñ ndax sëriñ maam Ousmane keroog maa ngi dem di seeti sëñ Ousmane li muy guddi guddi fa laa ko fekk jour boobu laa doon tukki ci ëllëg sa tabaarakallaahu maa ngi fay jëm ay boor yi min mi ndax man heure yooyu lay dox waaye damay tàggoon nag balaa may ñëw fekk woo naa sëñ Ousmane ne ko dinaa fa ñëw waaye ci guddi mm-hmm. waaye li muy guddi guddi moom mii fa laa ko fekk kon àndam ak sëñ Ousmane lu dëggu la waaw am na ñoo xam ne boo tawatee doo leen gis ndax yaakaar nañ ne dootee leen mënal waaw yaakaar nañ ni dootoo leen mënal comme sëriñ bii li ko dal nii am na ñoo xamee na ci ñu bari nag waaye ñu bari xamee nañ ko ci nit ñi fekk yaa ngi mën doo leen xam ker boo mënatul rek nga leen di xam te àddina mën ak ñàkk mën moo fi ne waaye kuy topp nit ndax mën na am na bés dana ñëw nga bàyyi ko benn mu jeex wala mu dee su fekkoon maag meer mbow dañu àndee am am jeexul waaye tey la gën a baax yàlla sedd na ne léegi léegi ci bi ma jullee tàkkusaan laa ko ñaanal léegi bi ma jullee tàkkusaan dog bi may defal ñi génn àddina waxuma mbambastal de ku ne damay tudd sa tur ñi ma xam ñépp ku ne dinaa tudd sa tur moo tax léeg-léeg dinaa jël une heure trente pour ñaanal ñi gaañu une heure trente dinaa ko am pour ñaanal ñi faatu ndax bëgguma romb kenn léegi ci tàkkusaan laa ko mujj jànnal mère Mariama Mbow yal na yàlla dolli leeram yal na ko yàlla dolli yërmande ak mboolem ñu fekkee ak ñu ko fekkee ak ñun ci suñ bopp yal na yéex suñ ko fekkee jee lañ leen di ñaanal yëpp yal nañ fa fekk suñu wàll ngeen baal ñu àq bu baax nag ci guddal bi ñu ngi jéggalu xam naa ay nit moom boo leen nammee ñu namm la bi ci des mooy ku am gan yokk ñulu tey gan yi fi daje yépp lii mëntoon a ñàkk am kii fa mu jógee sori na Cerno Ibnu Omar raw ko dégg nga bi ma ne ko xoore ñi walla jóge moom mu ngi ko yërëm moom mi jógee Mali moom te ñoom ñaan ñëpp Mali lañ nekk waaye wóor na ko ne fam fa kii jóge moo gën a sori moom fi mu jóge mooy li wolof di wax ne kuy jooy du noppiloo kuy jooy kon loolu rek la eh, tabaarakallaahu ñu ngi lay gërëmati di la santati di la ñaanal yàlla suñ paree nag bi wet bi wax ñu seet ni nga ko bëggee rek ñu defee ko noonu ñun léegi ajootul ci ñun ci yow la aju ni nga ko bëggee rek noonu lañ koy defee incha allahu Modou Ñang yow it ñu ngi lay sant moom it Italie la nekk moom Baye Fall la moom waaw ah, moom si Baye Fall la dëgg yàlla di nit ku baax nag di nit ku baax moom it ci nii rek lañ xamante maak moom ci nii nga xamee ak man nii la xamee ak man ak Cerno miy toog beneen bi nag fi may jeexale mooy kuy dem Fès léegi am na ñu ma fekk ci saal bi di ci waxtaan ak man ne ñoom ñaar ñu nga tasee raba ci Ibnul Arabi ma ne ko noonu la de léegi nit ñaa ngi koy jéem a weddi waaye du dëgg dëgg dëgg ji mooy Seydina Cheikh moo ne balaa ma kenn di ziyaara na jaar ci Ibnul Arabi as-Saih ca Raba mu ne loo fa ñaan yàlla boo yegsee ma defal la ko gaa yaa ngi koy weddi léegi nag impliqué wu kenn waaye ña koy wax seen intérêt personnel a tax xam nga lu tax yaakaar nañ ne boo jaaree raba ruusal fa dara boo demee Fayes doo mën a ruusal ndax lii waxu Seydina Cheikh kenn waru ko dindi ndax lii dërëm jaru ko Seydina Cheikh a ko wax sëriñ Cheikh Tidiane si wax na ko Cheikh El Hadj Aziz mosul dem Fayes te jaarul raba mais Ibnul Arabi Asaayih ni mu toll ci tarixa bi. mais nit ñi xanaa dañ dañ ràkkaaju wala lu leen dal ndax bëgg dara ya allahu akbaru la kabira siwaahu jallat mahamiduhu wa azza sanaahu moo ko woy la ko indi Seydina Cheikh Seydina Cheikh du nit xoolal tey tubaab yi lii ñuy def di récupérer doom yi ñuy sànni mais Seydina Cheikh a ko njëkk a def moo xëy gis maghrib ku jur doom hors mariage gas ba mu xóot suul wala nga sànni ji mu ne noonu lii ëpp naa def bàkkaar bi ak njaaloo bi jotee wuñ dara njaaloo bi yàlla lu koy duma mais doom bi lu def ne bëggatuma ko gis dal di jël ibnul arabi ne ko chargé naa la ko ku naratee sànni doomam na la ko jox seetal <laughs> lii ibnul arabi di leen récupérer yegg na ci moom ba lum ñaan yàlla yàlla nangu ko mujj Seydina Cheikh kuy ñëw ci moom di ñaan lu mu ne la ah, am naa buntum ñaan ñu ne ko kan mu demal ci Ibnul Arabi moom lu balaa ñaan yàlla nangu balaa ñaan yàlla nangu loolu la Seydina Cheikh wax mujj na nit ñi dañuy fees del ci Ibnul Arabi muy ñaan ndax lum ñaan yàlla nangu Seydina Cheikh ne leen ko am ku dudd lakk dee leen dem ci moom muy ñaan muy ñaan rek boo demee raba niñ ko gëmee dangay dangay da yéemu ci yàlla waaw Seydina Cheikh ne hayyan wa itam ku may ziyaare na nga jaar ci Ibnul Arabi loo fa ñaan boo ñëwee ma defal la léegi nag nit ñaa ngi koy teggi bu ko ci kenn def bu ko ci kenn def maa ngi ñaan bu ko ci kenn def waxu Seydina Cheikh jëfe la tudd jamono mënu koo dindi nag wax ba xottiku mënu ko dindi ibnul arabi as-saaih min kibaaril muqaddam al muqaddamina fi tariqati tijaniya seydina cheikh wóolu ko gépp wóolu teg ci loxoom lim teg ci loxoom chargé ko ay mission mu di ko dox pourquoi ndax dërëm rek jaru ko jaru ko poñetu àddina bi wa ma mataaul xayaatu dunya illa xuruur ba ñitu àddina bi yàlla nee na wor rek la leen di jëme xasnu maab lu ko jiitu zuyina linaasi hubbu shahawaati min annisaai walbanina walqanaatiri almunqantarati min aldahabi walfiddati walxeyli almusawamati walanami walxars yàlla ne baax na de waaye zalika mataaw alxayaati dunia ñu ne ko lu tax mu ne wallaahu indahu xusnu ma am taaralaa leen naa leen zuyina taaral naa li naa si ñeel nit ñi ak zuy mooy taar mooy zina min zina zuyina taaraleef naa li naa si ñeel nit ñi xubbu shahawaati bëgg bànneex xet gu neex yongo ma ju rafet gis nga lam ca teg xubbu shahawaati minan nisaa yi jigéen la njëkk a joxoñ mu ne rafetaal naa seen bakkan yi booyelal leen ko bëggalee leen ko ñu bëgg ko lool te ta xamuñ ne taar la rek hubbu shahawaati bëgg bànneex mi ne nisaa yi ci jigéen ñi boo gis ne duma romb mu ne wal baniina ak doom am na ñoo xam ne seen doom mooy seen seytaane bul laal mukk booy laal ñu yóbbu la police wala ñu indi la coow la du jeex lu seen doom wax rek mooy dëgg lu doomu keneen wax du dëgg moo tax mu ne wal baniina wal qanaatiiril munqantarati mu ne ak jëfandikukaay yu ñàkk fayda yi min az-zahabi ci wurus yi wal ak or wal xëylil musawamati ak fas yi ñuy rangale naan maa moom mooy 4 x yi ñuy tiitaroo léegi c'est ma après c'est ta après c'est ma voiture et j'ai d'autres après la mort il vient ah ouais. après wal xaylil musawamati wal anaami ak juri kër yi maa moom gétt gi wal xars sama tool baa nga ne lee sama versi bi on ah. dama am benn versi fële si bi xotaan di ko tiitaroo wal xars mooy versi yi ngay gis wala range yi wala sama range bi sama nangam sama château bi wal xars yàlla ne baax na de waaye nag yemale ko ci zalika mataaul xayaati dunya def ko yóbbalu àddina rek waaye bu ko dugal ci biir xol bi yàlla ne baax na waaye def ko yóbbalu àdduna xam nga yóbbal boo yéegee séddale ko nga ni yàlla di waxee waxul ne bon na de dafa ne baax na waaye def ko yóbbalu àddina bu ko dugal ci xol bi zalika mu ne loolu baax na de waaye nag mataaul xayaati dunya yóbbalu dunduk àddina gii la rek utal nag la nga xam ne wallaahu nekk na fa buur yàlla indahu fa moom xës na maab gën caa rafeti delluwaay yal nañu yàlla defal topp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi jéggalu man damaa xaw a bari wax waaye du suñu sagoon nag ah ah waaw seddee yépp wool ma duudu tuuba sëñ Tuubaa rek la gëm te moo may dawal la te xam naa ni man gëm na ma astut <laughs> waaye am na lu may neexale ana duudu waaw kañ mu ngi kaay taxawal nii ñu gis la kële mooy taxawal noonu rek waaw ñi ci des ñëpp nañ toog duudu taxawal kii mooy duudu moo may dawalal taalibe maam borom Touba la sëñ rek la gëm waaye am na fu ma toll am na fu ma ko toll du barki démb ñoo ànd ci Thierno Bachir lu ñu dal réer laaj ko man muy man muy dem ci Thierno Bachir réer xam ngeen ne foofu la àddina yam <laughs> fii fii wakaam fii fi ñu demoon ñun laaj ko quatre fois kër gi ñu réer laaj ko euh, xam nga xam ne loolu bu ma gëmmee sax yegg waaye waaye xam nga mu ngi nii fen kañ du taxaw ma yow quatre wër foofu yépp xam nga nu mujj def woo ci balu ne ko kaay jël si ma lii may wax nag moom fekkee ko ndax boobu mu ngi ci oto ba ci balu ñëw taxaw ci tali bi déedéet ba ma gis ko mu mu mu jiitu ma topp ci kaw ak ni ma xamee kër Thierno Bachir waa léegi toogal duudu pour li may nettalee tax may wër réer réer xam ngeen ni réer une heure de temps may woon kër gi xaw ma ko bi ma ñëwee ba yegg si fekk ko mu toog xam nga nu mu ne nuyu ma ne sëñ Abdou la réeral <laughs> maa la booleeg sëñ Abdou mu réeral la <laughs> mu ne maa la booleeg sëñ Abdou mu réeral la dama doon seet ndax sa cofeel ci sëñ Abdou dëgg la ma ne sëñ Abdou bu dee dëgg la réeral ko. <laughs> mu ne ma nag boobu dama doon seet ndax di nga wëññeeku dem ñibbi ma ne ko ba bër set dama doon wër mu ne ma ci nattu la laa nekk ba tey de ma ne dama maa wax sëñ Abdou na réer mu ne sëñ Abdou la réeral de mu ne ma ndekete yow xamagoo dara sëñ Abdou réeral la ngay wër fii <laughs> duuta ngi ni doo bàyyi ma fet ni ma xam que yéen ñëpp xam ngeen ne waaye waaye xam ngeen ne man doo fa xam naa kër Thierno Bachir nag waxaam yi. jeex na une heure de benn yoon benn ne ma xam nga lu tax ma ne ko déedéet. i Thierno Bachir mu tegaat ah Cheikh El Hadj kooku du nit. mu ne ma xam nga lu tax ma ne ko déedéet mu ne ma sëñ Abdou dafa am ñaari bët yii. ma ne ko waaw mu ne maam juróom-ñaari bëti xol Thierno Bachir Doudine mu ne ma xol juróom-ñaari bët la am mu ne ma am na ñoo xam ne bëti xol rek la ñuy gisee mooy silmaxa yi mu ne ak nitu yàlla yi mu ne benn muy kashfu wala yàlla ubbi sa bëti xol foofu ma ma sob nag ne ko moo tax xanaa Seydi Hadji Malick ne nawwir basha bas ira basaira abdikal mutazallili mu ne ma boobu la mu ne boobu mooy bëti xol yi pour yàlla namm ko ngay gis mu ne waaye néew na nag kuy gisee bëti xol booleeg bëti biir yi bëti biti yi mu ne benn ñaari bëti biti yi la la yàlla di ubbil ngay gis fépp mu kaste yu xol yi nga di ci gis biir rek yooyu moo tax yonent bi dee leen àtte ci biti te bàyyi biir bi ak yàlla mu ne nag sa ñabdu yàlla defal ko loo xam ne ah ñépp day xaw ma man sa ñabdu laa sañ a man dey xam naa sama sëriñ boobu sa ñabdu mu ne ah mu ne moom rek laa xam ci kaw suuf ku yàlla jël ñaari botam yooyu boole kook juróom-ñaari boti xolam yi yépp mu di ko gisandoore mu ne loolu man man Basiiru xam naa ko mu ne ma boobu nag laa doon seet foo ci toll ndax sëñ Abdou moo tax ma ne ko réeral ko mu gëlëm waaw dugg ci nag bi wax ma yu baree baree bare yooyu waxu biir la waaw wax ma ci yu bare nag yu baree baree baree bare mu ne loolu rek laa doon seet waaw daal di ma ci tegal nag ne woo cubbalu mu ñëw mu ne ma muñal dama bëgg nga muñ ndax li la yàlla defal ku ko yàlla defal foog nga am coono bu la neexoon nga wéyal sa bopp doo topp ci gannaaw kenn te loo bëgg yàlla def ko bu dul dara man sa bàyyi basiiru gërëm naa la bëgg nga ma teral nga ma fonk nga ma def nga ma bàyyi def nga ma lépp ba àddina bi yëpp xam ko yàlla xam ko yonent bi xam ko sëñ Abdou xam ko Alaaji Cerno Seydou Nourou xam ko ma xam ko sama njaboot yëpp xam ko loo bëggoon tey mën nga ko am waaye yaa ngi ut kilifa ba tey dama doon seet ndax sa cofeel ci sëñ Abdou dëgg la kon ñun ñépp nañ ut kilifa waaw Cerno Cheikh waaw yéen a ko jëli yoon waaw mhm. Abdoulaye Ndiaye. Chérif. Mmh. Mmh. Mmh. moo dëgg la de. démb rek. bi may xëyee bi ma jékkee-jékki ñu wow ma ne ma nanga nga ñëw Bruxelles suba ma ne leen mënul nekk ndax fokk ma woo Thierno mu ne ma waaw walla déet. waaw. le maire Mamadou Gueye ak sama nijaay bi ñëwee toog ci salle bi sëñ bi ne waaleykum salaam fekk nuyu ne bu yàgg benn sëtam ñëw xam nga diggante sët ak maam rek ñu ko wax ah, maam ñoo koy nuyee mu ne ko eh, Cheikh Omar Foutiyou Tall moo fi jaar di ma nuyu te bu dëppee dina fi jaar nuyu si ma mu toog mu ne. nañu indi benn bool taasa ñun tugalal moom la ñu wax ñu def si cere mu ne sama yaay lekkal li may wax ni nag di ëllëg dama koy fekki billaahi wallaahi wataalaahi dañu toog di lekk cere bi meew mu ngi génn taamul meew bi ñu paree mu ne sama yaay wekkil ma sama mbubb bi ci saal bi dafa amoon benn kanape en bois ñu teg ci maanaam coussin sama yaay def na trente minutes pour wekki ba grand mbubb bi mënu koo wékki moom Seydou Nour moo jóg xëcc grand mbubb bi génn ci poosam benn mouchoir ay pièces jox ko sama yaay sama petite sœur bu ñuy wax Kaja mu nga Fuuta bi mu juddoo moom moo ko tudd kooku tey boo demoon dóor bopp bi nii rek sa loxo new yi mu am lu yéeme chérif tey laa koy nettali tey IPRES laa nekkoon comme contrôleur ma xëy suba rek am problème ak sama président conseil d'administration tàggoowu ma ma xëy suba rek dem kër Thierno Mountaga sama nijaay sama goro moo doon bëkk néegam tommanteeg maam Abdou ñëw këram ci leen ñu yegg si toog di añ comme ñun tugaloo dañu am respect xale day toog ci ndabu xale mag toog ci ndabu mag ma jóg bëgg toog ci pla xale yi rek Thierno Mountaga xëj sama loxo daal di ma jox torchon ne ma dékkal. ma dékk mu sotti sama loxo ma raxas ba mu set mu ne ma dékkal ma ma dékk ñu añ Famara Ibrahima Sagna bi ñëw fa à 13h ñu ne ko yegal ci saal bi ñu pare mu ne sama nijaay nañu yóbbu añ comme que sama nijaay sama goro la ma ne ko añ bi nag boo ko yóbbu mën maa ko yóbbu sama nijaay ni mukk daal di ne ba def tànku nen keroog ba ñu yeggee ñu ngi fekk maam Abdou ñu ngi koy bës ba ñu yegg say góor gi ne ah sëñ bi mu ne si. mu ne ah Thierno Mountaga yónnee nañ góor gi moo ko indi billaahi sama loxo laa dugal cinquante mille dix billets de cinq mille ba ma ne cëpp jox ko loxo rek mu téye sama loxo fii ne ma jox nga sa ndey jox nga sa ndey alors ma jox nga sa ba muy trois fois mu ne ma sama goro bi ne ko kii de sama jarbaal maatam la dëkk mu ne maatam bul seetati sëriñ man de Abdou sëñ Abdou ak sëriñ nekk Afrique yëpp Cerno Saam sa moom lañ jox fattu bi mu ñaanal ma ëllëg ma dellu sama biro mu jubal garage pompier ku Fuuta ma ñëw wàcc Medina Njaat bi ci guddi ci Thierno Mouhamadou Rabi boo ñëw ba ci ci foofu boo wàccee ñu ne dañuy dogal ay nit mu sumeeku tasanteeg ay gars yu bene man dem ba ca kër ga keroog boobu laay doog a lekk desitu taalibe doomu bu ñuy wax Baba Gàlle moo ma dalal ma ñëw toog ba sept ci suba ma ne ah, kon xaaral ma gis sëriñ bi ma ñëw ñu ne ma demal ñibbi 9 heures ñu woo ma ñëw bi ma ñëwee. manto bi ma gisoon sëñ Babacar si di ko sol laa fekk Thierno Mouhamadou Rabbi sol ko ci biir jàkk ji mu ñëw rek waxtaan ak moom bu jékki-jékki jox ma lu ma rek et ma ñibbi si ma ko ne Matam dama yegg maatam ci nuy Thierno Sama sa rek mu ne ma ana sëñ Abdou ana Thierno Mouhamadou Rabbi lii. ci li ma dal jóge naa Matam ba ñëw sama bureau kenn laaju ma fa demoon kenn laaj foo newoon te gàpp te chaque Tivaouane bu jotee su ma ñëwee xabru sëñ maam Abdou Aziz si Dabaax lu mu fees fees fees ni ñi rang su ma yegsee kii toog ci xabru bi day génn ba ci xabru bi ñëw fekk su ma toog dugal ma ci biir moo tax bu ñuy wax bu ñuy wax talibé cheikh eh, chérif Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif mais Chérif euh, suñu borom yàlla na la fi bàyyi lu bëri enseignement bi ngay dugal ci bopp nit ñi euh, xëy na munu wax ci biir mbooloo li ma feebar a tax mais bu Sénégal yëpp doon déglu ci li ngay wax lu am njëriñ doomu aadama yi lu am njëriñ ci doomu aadama yi ndax kuy jàngal nit topp sa diine te lépp li ngay def na koy def yow doo tu n'es pas dëgg bi moo la neex dëgg bi ngay wax sa intervention yëpp dëgg ngay wax ci laa la sopp façon yaa ngi sama mbir xol en tout cas daal tey jii ma ñëw naa fi kontaan naa lool maa ko maa ngi ne ko nag metit mais bi ma la déggee léegi am na lu bari wàññeeku na ci man billaahi wallaahi wa taalaay fi mu nekk nii ma ni maa dama jàkkaarloog sang bi ci boppam ak sa barke maam man nga li nga doon nag saa waay askan bi yéen population bi yéen lay waxal ñun ñëpp nañ ànd sant yàlla ñaanal sérif waxuma ko nag ndax li mu toog a tax déedéet li ma gis ak li ma constaté lay wax te ñu ñu fi toog ñi ñëpp jël nañ fi xam-xam ci li mu wax ci lu bëri ñun sama classe yi xam ne jànguñu am na lu ñu ci jàng macha kañ. parce que keroog bi ngay denc samay waajur bu jigéen taw na taw boo xam ne eh, ay dara ay dara ay dara ay dara ay dara ay dara ay dara masha allah alhamdulilahi rabbil waaye mboobu am na lu mu waxoon digganteem ak shérif keroog ba may jógee di dem nee naa leen dama bëgg bës bu shérif xewlee nañ ma ko yëgal fu mu a fekk danaa ñëw xëy lii la yàlla dogal mais bëgg na daanaka mel ni wër na dafa man lool. wallaay wallaay ñoo ko ñoo ko bokk. ndax suñu yaay la ni mu la juree la ñuy juree. ndax njuree du koo ëmb ci sa biir rek déedéet moo ñu gis doomoo ne da ko bandum yaatu na ña fa ne bari nañ dëgg yàlla Adja ba mooy présidente bi ña fa ne ma sopp waaye moom daf ci gënoon ràññeeku fa tabaarakallaahu ba ni ma wax noonu yóbbante ba nga yóbbante keroog gàmmu bàyyi yoro jot naa ci tabaarakallaahu li nga seede léegi ci Alaaji Cerno Saidu Nuuru kii fi jógee di Cerno ibnu sow bii nga xam ne Cerno Amadou Sow xore ñiwa moo ko jur jàngal Cerno Bachiru Muntaga Daha Cheikh Al Hadj Omar Al moo nettali ci gémmiñam moom Cerno Omar Cerno Amadou dafa digg alaaji Cerno Saidu Nuuru li may wax nii Cerno Cheikh Umar Ba di jarbaatu Cerno Bachiru bokk ak yaayam ak Cerno Bachiru ñoo bokk ndey ak baay yaayam moo mag Cerno Bachiru moo gaañu bu yàggul fekkee na jotaay bi moom Cerno Cheikh Oumar nettali na koy it keroog mu digg Cerno Seydou Nourou ne man de ki may dégg ndakaaroo surtout Cheikh Oumar boobu fokk ma dem seeti ko te boobu góor gi li mu yor ci wilaaya xam nga ko jàngal Cerno Bachir xam lu ne bu ñaanee yàlla nangu mu dajale tool yam bayoon lam béyoon yépp mu dajale ko def ko ñetti xaaj ne lii bu ma yox yi demee jox ko alaaj Cerno Seydu Nuuru hàddiya lii su ma demee jënd ci sëri ca pour bu may wàññeeku lii su ma ñibbisee def ko dépense nee mu ñëw yegg si comme ni mu wax ma alaaj Cerno Seydu Nuuru ne waaleykum salaam ah yow yaay Cerno Amadu wari ñii mu ne ko man la Amadu pour dindi Cerno bi bëggul nekk Cerno ci kanamam mu ne ko Cerno Amadu wari ñii mu ne ko Amadu mu ne ko Cerno Amadu wari ñii ko Amadu mu ne ko mm sa poos bii génneel li nga def foofu nga ne alaaji Cerno Seydu Nooru nga koy jox mu ne mu génne jox ko mu ne ko beneen poos bi génneel li ci nekk nga ne boobu da nga koy jëndee sarice indi mu jox ko mu ne ko beneen poos bi génneel li ci nekk nga ne danga koy def dépense te waxagut dara de mu génne yëpp mu ne ko boo demee sa kër sa wëlis sa taatu waxane ba am na benn dërëm bu yàgg bu boo amoon mu réer la te xamatoo fu mu ne mu ngi ca taati walis ba ca ruq ba la duggoon demal nga indi ko <laughs> nee ma dem indi jox ko yépp mu ne ma waaw léegi bàyyi fii yëpp te nga jóg dem nee na di heure matin fu ma jëm nee na mu ngi door a ñëw ndakaaru xamut Dakar xamut fuy Dakar fi mu jëm sax bu ko oto yóbbuwut du ko xam nee na mu ne ma demal ñibbi ne na ma génn ba ci tali bi taxaw am benn taxi bu gaare ci sama tànk mu ne am ku nekk ci biir taxi bi yër ne ma i kii du Cerno Amadou Sow ma ne ko man la kay mu ne ma kañ nga fi ñëw ma ne ko démb rek laa fi ñëw mu ne i yow day fooy jëm lay yóbbu waaye may ma damay dem fii damay ziyaara ji alaaji Cerno Seydu Nuuru may ma ma ziyaara ko ci ñëw mu ne ko doom ñëwal yóbbu ma ma ñibbi ba pare balaa ñu maa def niñ la def niñ ma def balaa ñu la ko def yóbbu ma man ma ñibbi ba <laughs> boo ma yóbboo bi ñibbi ma ñibbi ba pare bu la neexee nga dem nag niñ ma def danañ la ko def <laughs> nee na mu yóbbu ko mu ñibbi nee na ma ñëw ca ëllëg sa ziyaarewaat ko waaye lu ma indi rek mu ne ma nàngam la génneel yépp nga jox mu ne ba ñetteeli fan bi mu ne ma léegi mën ngaa ñibbi waxtu ba la neexee mën nga ñibbi nee na ma ñëw ci kër gi nit ñi di ñëw ñii yére ñii xaalis ñii yére ñii xaalis mu ne yére yi ma def ko walis ba mu fees mu ne walis bi ci des dama ko def xaalis bay toog ci kawam di ko tëj wala su xaalis mu ne dama ko def xaalis ba di ci toog ba di ci toog di ko tëj mu ne laaj Cerno Seyd Nuuru booleel ko ci ne ko alalu àdduna bi boobu waxuma boobu di ko bari la sax waaye yàlla bi rek boo bëgg dinga ko am man Seydou mënun laa la jox léegi yàlla mënu naa la jox àddina yow boole naa ñaar yépp ma jox la yóbbul àddina yóbbul yàlla moom way juróom nettali na ma lu bari ci alaaj Cerno Saydu Nuur man yàlla daf ma mag ñi dama leen bëgg te ku bëgg dara jegeel mag ñi gis nga yooyu ñu lay wax am na ci yoo xam ne bu ñu la koy wax ca la ñuy roof lañ bëgg soxlawul wérd soxlawul ñaan soxlawul dox ba tas lañ lay wax ca la ñuy roof lañ lay waxaale dem seen yoon pare nañ ci te kenn dootu ko mën a dindi ci yow te mën nga wérd ba suba ba jant bi so nit ñoo ko du ngaañ yóbbu dara nga ci mënul ndax yaay def lu tax mu mu saisir ko kon nag ñu ngi fasante ak yow feddali kóllëre gi ñu fasante woon ak sa yaay di suñu yaay te di la ñaan nga may ma léegi ñëw nga ba gis naa la léegi may ma man ma di la seet si may nga ma ko waaw léegi may ma ko man maa la ko ñaan ndax tawat bi àndul ak déplacement yu bari Chérif lépp loo mën a ñaan dinaa ko nangu waaye dafa am lu ñu xam ni ñu ni ñu yare ak ni ñu bindee. waaw. surtout yonent bi. même bu ma doon raam. dese benn minute man maa lay seet si. waaw waaye yonent bi daan na jóg sol di seeti ay saxaabaam di seeti ñoo xam ne sax duñ jullit ay yawut Cheikh a tiijaan yi daan na jóge Fès di dox lu mat juróomi kilomètre pour seeti ay muqaddam xanaa war naa ko ci mën a roy nangu naa bu ma ñëwee ba bu ba bopp koñ bi waaw ma xool kër gi rek <laughs> doy na ma ma ñibbi waaye may naa la ko waaw kañ may loolu duma la ko bañal waaye bu boobaa it bul wàcc oto bi waaw xoolal kër gi rek dem hmm, macha allah yàlla baax waaw kon nag aleykum salaam. maa ngi jégalu ah. gàmm gu jot moom laa daan yabal booba mënu ma ñëw ndax ñàkk kayit dëgg la léegi am naa kayit dama bëgg at mu jot ma ñëw damaa bëgg nga defal ma ñaan bu may ñëw ci gàmm gi indi lu bari ndax gàmm gi dafa laaj indi te indee ma war saako dugub laa daan indi ñaari saako yu sopp laa daan indi léegi nag damaa bëgg indi ay tonnes waaw nga defal ma ñaan te man nga ko am nga ko sa barke maam am na leneen nit loo xam ne moom am na ci man. waaye comme li mbokk mi ñaan rek bu ñu wàccee ci biir. waaw bu ma la gisee rek mu wax la ko nga defal. incha allah bu leen waaye daal li may wax mooy. Hmm. ñun ñi nekk ci àll bi moom di la déglu di la seetaan waxuma xam-xam bi ñuy jëlee ci yow waxuma njariñ li waaye jàngal bi ñuy jàngal rek ñun dañ ciy jële loo xamante ni bii ñun duñ ko xam. ñi nekk fii nag moom xay na nga jege leen ba mu ëpp waaye ñun ñi nga sori li ñuy am ci yow yaakaar naa ne ñi la jege sax ñoom amuñu ko ci yow ba tax dañ lay ñaanal yàlla yàlla nañ fi yàgg loolu te wér nee naa tamit su ma ñëwee ci yow nga ubbil ma bunt bi te mooy Louga su ma jógee fii bala maa dellu Fass bërëbu ga ma dëkk damay dem luga yaa may ubbil bunt ba nag ba ma mën a gis kilifa gi mu defal ma ñaan ma doog a mën a delluwaat fu ma dëkk boo yeggee ñu mm. wax ko ko jaax na nga jaax na ba pare nag mm-hmm. nga ne ko moo ma yebal ne naa la ñëw ziyaare si la dégg nga incha incha allah léegi nag mm-hmm. soo ko ziyaaree ba noppi mhm. jëlal ma kaamil bi nga ne ko man maa ko ko jox tabarkal bu jëm ñaari picc war borom kay <laughs> ah. te dina te dina xam ne maa ko ko jox dégg nga ah. hmm? waaw ah. taalibe maam borom la ah tabaarakallahu tabaarakallahu danaa ànd ak aatuman yow hmm. seet la te loolu du géej ndax xam naa ne dina neex suñu yaay jooju le ah. meer Mbow dana ko neex lool hmm. te incha allahu dootul géej dootul géej lu xat-xat yi yaat bari bari lenn rek laa lay ñaan su ma ñëwee rek may ma fukki minute rek waaw te bu ko kenn yëg <laughs> fukki minute rek te bul jënd boisson bul jënd dara waaw bàyyi rek ñu ñëw ne la salaamaaleykum alaaj Cerno Seydou Nourou naka la meloon rek nga xam ne ñu waxtaanee suñ Cerno Seydou Nourou rek dem suñ yoon loolu rek doy na waaw insha allah sànnil ma déet baax na ñëpp may ñaanal ñu